jàkkaar loolu mu sëgg di roñ ay bagaasam ab sëriñu tariyaax la nekkoon fii ci ci daaxul mi nan da doon sàkku soxnaas jàmbur bëggoon ko tëddee boroom këru ndaw si di Abdou Lahad Dieng di indiwaat ay leeral ci ni nga xam ne noonu la mbir mi demee. ma ma koy bàyyi xel di ko gis léeg-léeg mu parce que ñëwee damay xool ba xam ndekk tarmuus bi da day may day may kii kafe léegi ba démb nag ma soppise ne ko woo ko ne ko kii mënuma kii xaritu Faatu la sama doom ma ne ah, loolu dëgg moo ko daal dem moom itam nekk waa ji da ko dafa nekk Jurbel ne ko sa jëkkër da liggéey liggéey bi da ko suul ci biir kër gi ci biir kër gi la ko wax ci la ko suul mooy kii ñaan ci biir kër gi la ko suul su ma ñëwee naa la ko dindil mu ne ko waa baax soo ñëwee dindil ma ko ba mu ñëwee ci suba sa mu ne ko da nga fi ñëw mu ne ko mënuma fee ñëw te awma preuve boo man boo xam ne da nga naa ma liggéey waa ngi ni ma toj léegi ci guddi gi moom mii mu ñëw fa suul ko ci buntu daal ci def ay puso photo yi yor naa photo yi sax ndax photo na envoyé na ko daal ci def ay puso ak daal di bind daal denc bi mu ba soxna si ñëwee mu soli ko soxna si ne ko man de waxoo woon ne ma ci buntu kër gi ci biir kër gi nga ma waxoon ci fa liggéey bi nekk te ci buntu kër nga soli daal ne ko liggéey boo xam ne da nga yàgg ba pare nga ñëw suli ñaari loxo rek génne ko man loolu téye na sama xel daal daal daal di am dut moom itam bi mu ñëwee comme borom tailleur boobu tailleur boobu moo leen boole woon léegi bi mu defee noonu soxna si moom itam xelam ñaaw mu ne kon comme est-ce que du ay complot daal di jug ndànk moom itam ñëw fekk leen ñoom taw taxaw fenêtre bi dégg ñaam ñoom ñoo ñu waxtaan mu daal jël appareil am daal di daal di bës vidéo bi daal di dugg nuyoo salaamaaleykum ñu la bëggoon xam ndax dañ sëriñ bi moom moom ñaar kenn ku nekk noonu sa morom xamante woon miinante woon loolu mooy problème bi léegi nag bi mu defee noonu bi ma ko laajee la ne ma la ko woo téléphone def ko may livre mu ne ko man dama laa bëgg a dimbali mu ne li ma jaaxal mooy sàkku gi nga ma doon tëdd gi nga ma ko yow am nga lu looy def lu gën a bon ndax sa jëkkër dana la soxla nga bañ te loolu moo gën a bon tëdde am na loolu da nga jëw te jëw moo gën a araam moo araam njaalo soxna ko ko def dañ a rey te lu yi ngay wax ni duñ la ci rey wate man daal lu ma ne xew lu ma njaalo mu ko léegi bàyyi naa njaalo bi moom bi mu defee noonu mu ne ma nag dafa ñëw mu ne ko sa lig soxna sa jëkkër da laa liggéey liggéey bu diis moo war sa yaram diis mënoo am dara léegi soo ñëwee moo tojal la liggéey bi danga am xaalis soo ñëwee ma sëy ak yow it sama mbir dana baax sa mbir dana baax soxna si moo ma netti loolu moom it confirmé na ko ci téléphone bu doon wax ak moom soxna si ne ko man loolu duma ko def mu ne ko su ma ko boolee ndox sama ndoxum mii boo ndoxum sëy mii ak ndoxum géej mën ko joxee nga sangoo ko euh, liggéey bi dana toj soxna si ne ko du ko kon am naa mën naa la ko ko ab téere nga boo am xaalis boo xëy boo boo sonn boo liggéey boo liggéey da nga am xaalis mu ne ko man ba léegi bu ma takk téere bu am sobee am di julli du ko def mm-hmm. lii mooy seen problème bi mu wax ma nag laa dem ñu koy jàpp nag am nañ ci moom ay preuve yu leer naññ ci ay vocal yoo xam ne daan na ko yónnee soxna si daan ko ci wax wax yu doy waar. man damaa mujj ne ko moom da doon def saa yu ko envoyé audio supprimer ko maa ko léegi su la envoyé audio bala nga koy lire en ma ko door ko supprimer door koo lire nga xam ne moom bala muy lire yu dana ma ko envoyé nga ne su ko supprimer dana ko. ci la ko jàpp. bi ñu yeewoo rek danoo jot ay message yu mu ñaane kafe moom mi moom mi moom sëriñ bi léegi nag bi ma ko waxee nag laan ci laa wax ci laa wax ci waa Xudamul ñu ne ma léegi comme comme mi ngi koy woo léegi pour preuve bu gën a leer léegi na dem yóbbu kafe gi. Mm. ci la indi kafe gi bi ñëwee fekk mu tëdd ci lal bi moom mu taxaw moom mi mu toog tiim ko. léegi nag après laa ne ko nag léegi deel wax comme ñu ngi ci ñu ngi ci ay wax ak moom di di envoyé tamit bu ko xamal ne ko yëg naa dara nar naa dara bu ko wax dara bu ko defee moom démb man ma woo mu jóom yi démb ba léegi ñu ci traité ak waaxu daam xadim ba tey jii nag ci leen ko wax ne ko comme da lay ak ñaan café boobu ba léegi demal yóbbul gi kuréel xam ne moo di Xudaamul Xadim def ci liggéey bu am solo ci njiitalul Modou Diop Diawbe ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi jàpp waa ji ci ay preuve yu leer naññi lu yoon fii benn kër nekk fi bi mu gisee soxna si nag mu woolu ko waxtaan ak moom xamal ko ne ko sa jëkkër daf laa liggéey liggéey boobu moo tax mu dott la ci kër gi bu mënoo def dara léegi dangay ngay ñëw ma dindi la liggéey bi liggéey bi nag mënuma koo dindi te sëy ñu mën ak yow seq ñu sëy maanaam am ak yow rapport boo ndaw si bañ euh, ci li ñu ndaw si wax bañ ay yoon ah euh, euh, xaj na li ñu def tànte na ko ay tànte yoon yoon moom dana ko dana ci dikk tànte na ko ba mujj mu ne ko léegi da ngay ñëw fexe génne li ci sama kanam bu ko defee bu génnee war ma jee tax mënuñu ko tudd su génnee nga diwoo ko. boole kook beneen diwoo ko dana tax liggéey bi dañ waaye sa jëkkër daf laa suul liggéey ci biir kër gi waaye yemut ci loolu euh, li mu ci dolli mooy bàyyi ba borom këram génn mu jël lu mel ne affaire liggéey suul ko ci kër ga moom mii suulal ko boppam ci kër ga bu ñu xëyee mu ne ndaw si nag léegi liggéey bi nañ dem ma génneel la ko nga gis ko ànd ndaw si dem génneel ko liggéey bi fañ ko suuloon ndeke moom moo fa suul liggéey bi moom mi toog li mu ci jublu mooy fexe ba sàkku ndaw si ndax nee na loolu la ci waaye nee na da koo tëyut ci li mu ñu wax nee na da koo tëyut ndax ay affaire koy dikkal mu di ko def léegi nag ñun li ñu ciy def rek mooy euh, gannaaw bi nu jokk ak sunu kilifa muy sëñ am sam sëñ Ablaat mu jaar ci sëriñ Bas Coro euh, ñëw ci sëñ Abdourahim Fall sëñ bi nee nañu bu mu bu yendu daaru minam na fa jógee léegi nag moom moo génneel boppam ay bagaasam nii dana wuti fu mu ko def borom kër gi ko luye woon dellu nañ ko bi kër gi mi ngi nii ki représenté délégué bi muy euh, Baye Daouda Jaxate mi ngi nii toog parce que waxuñu la Touba mais daaru minam loolu waru fi am bii nag moom lañ gis ci moom euh, li ci warit mooy bu ñu paree dinañ ko yóbbu police ñu identifier ko identifier mooy kan boo ko defee mu jël ay bagaasam neen nag mu nga dëkk fa ñu wax njaareem ci ay waxam loolu la wax ah euh, ñu koy wax rek ni ko loolu moom bëgguñu ko ci dëkk sell bi di Touba. nag lépp lu ñuy saytu ay preuve lañ ci am ñi nga xam ne mën nañoo waxtaan ak ñoom maslaa ak ñoom ñu def ko ñi nga xam ne dañ leen war a génne dëkk bi ñu génne leen dëkk bi ñi nga xam ne dégg nga koom tuub nañ jéggalu ñu baal leen ñu dem. ndax ëllëg mën naa dog ba ëllëg ki tuub bàyyi lépp nekkaat koo xam ne ndax du du moom nit ku bon la xaj na du ñu nit ku bon la waaye li mu def mooy li nga xam ne moo baaxul loolu la ñuy wax euh, nit ku lu ko jàppee rek lam defa tax jàppee ko nit en tant que moom du du doon nit ku bon. li nga xam ne moom la ñuy tuumaal sëriñ bi doon ñaan nee na lépp moom moo ko def nangu na tuuma yi waaye di ñaan ak njégal maa ko ne jox ma sa bopp. man maa ko ne waaw dama ko doon saako. waaw liggéey bi nga xam ne ci kër gi ko def. waaw ndax ko wax ne ko liggéey bii. sa jëkkër da da da sa jëkkër daf laa liggéey. waaw liggéey ba kan moo ko suul ci kër ga. man maa ko suul waaw. yaa ko suul ci kër ga. waaw maa ko suul yaa àndaat ak moom dem. Mhm. sulli ko. waaw ndax yaa ko doon woo di ko laaj café. waaw ndax yaa ko andiloo café gi. waaw ndax yaa ko doon jéem a sàkku. waaw léegi loolu xam nga dañ koy tere. dëgg la. ah waaw. léegi nag ñun li ñuy def mooy. Mhm. loolu sëriñ bi bëgg ko ci dëkk bi. dëgg la leer na. léegi looy sàkku ci loolu nga def. li may sàkku ci loolu mooy. jëkkëram a ngi nii taxaw. waaw li may sàkku ci loolu mooy. Ah. Euh, li may li may njëkk a wax mooy. lii am am na mu pare. waaw mënatuma set te jéemal moo sax seetal sama bopp. waaw yaay dégg kon bu yóbboo nag li ma war mooy jégalu ndax man maa tooñ. te mbir ma ni mu demee yëpp loolu sax jaratuñu ciy wax man maa tooñ rek man maa tooñ yaay dégg. ñaaxaat nañu soxna yi bu baax a baax rawatina ñi nga xam ne dañuy sëy ñu bàyyi xel bu baax ci ñu mel nii ndax bëri nañ lool ci dëkk bi. ñu am ñu leen xamal ni yéen yéen soxna yi nga xam ne da ngeen di dem ci kilifa yi di ñaanlu ngeen bàyyi xel ni bu baax lu mel nii bari na fi lu mel ni bari na fi lool ñoo xam ni ndax du kii rek lañ ci jàpp ñun Touba ñi ñu fi jàpp bari na lool ci lu mel noonu ñoo xam dañuy ñaanloo ay jigéen ba pare di leen sàkku benn preuve la ci moo xam ni dem ci kërug jàmbur suul fab liggéey ba pare dégg nga ko ni ko sa jëkkër ko fi def loolu day yàq diggante. borom kër gi nga xam ne moo luye woon sëriñu tariyaax bi nee na mësul xam ne lii la nekkee woon ci kër gi donte daan na gis ay jigéen yu bëri daan fi dugg. ndax man saa su ne maa ngi ci kër gi ah bu ma génnee itam ñetti weer lay am dellusiwaat ci kër gi lu fi waaye di def lu ne nag moom lii nag moom wax dëgg yàlla moom ump na ma lool moom wax dëgg yàlla ndax mu déedéet wala kii déedéet da ah gis nit ñi du fi dugg jigéen ñi daan nañ fi dugg li fi ëpp nag ay jigéen la moom ñoo fiy dugg waaw waaye bu ma xamoon ne lii la fiy def itam nag wax dëgg yàlla moom du ma dëkk moom ndax man koy taxawal du dëkk sama kër mukk ku fi dugg ku ne loolu laa lay wax lu ma naqari lool am lu ma naqari lool nag ndax lii moom wax dëgg yàlla bëgguma ko li sëñ bi bañ ci dëkk bi moom bëgg mu sama kër gi sëriñu tariyaax bi nag génne nañu bagaasam yépp ci teewaayu kilifa yoo xam ne ñoo fi teewaloon chef de quartier bi ñoom yëkkati nañuy kàddu rafetlu liggéeyub Xudaamul Xadiim waaye ñaaxaat bu baax a baax askan wi ñu gën a bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy luyee war na nag képp koo xam ne si mi ngi jonjoog noonu nuy xool na nga war a doxe di gëstu sa mbir donte sa léeraluñ ko it war na war noon ko xam baax boo dee kuñ mën a àndal noo ànd ak yow bu dul kuñ mën a àndal ñoom génne la saani jàll ba waaw loolu moom mu ngi fi am léeg leen nu nekk kii man fi ma ko xam tey jii bu daje woon ci bedd mii rek ku ma laaj dama naan leen kii de man ci jàkk ji laa ko xam waaw bu mu ci jàkk ji man maay def ñaare ku julli julleeti booy jóg bu fekkee nit ñi wéet nañ moo ma téye sa loxo nuyu la ne na sant waaw léegi loolu la ma wax bi bi mu ko waxee euh, laaj naa ko ay béréb ci fi mu dëkk yu demee noonu ndax man a jàkka ma ko fii man dama bëgg ko fi nekk ma di ko xam ko nekk xam naa ne it maa ngi koy seen muy yéeg escalier bi toujours du yéeg ak a wàcc ndax sama kër ak gii dañoo jàppaloo fi ne buy dugg ak buy wàcc bu nekk maa ngi koy seen bu fiy dugg it maa ngi lay seen ndax sama kër a ngi nii noo wanante gannaaw ma toog ci sama ëtt kuy kuy dugg ci escalier bi maa ngi koy seen waaye nag loolu rek laa xam ci moom loolu laa xam ci moom waaye nag lii moom lu tàggee nag mu yem ci béréb bii dong li ngeen di wax xam naa ko bu baax ma bëgg nu bañ ko yemale ci béréb bii béréb yépp nu koy surveiller di ko xool nii ngeen di def nu koy def donte doonte jógunu sol sunu dal di jàppaloo ko def yow képp koo xam ne si xam na ne tegewul ci yoon kookee yéen ñi nga xam ne yéen lañ sant ngeen liggéey liggéey booba nu jokkoo ak yéen fexe ba ngeen ñëw ba am ca xam-xam bu wóor buñ ca xam-xam bu wóor bu nu leer nu dikk xamal leen ko bu boobaa da ngeen na ngeen koy réglé yéen a ko jàng yéen a xam na ngeen koy doxee. sëriñ bi di ñaan muy waa ji ginnaaw bi ñu génnee ay bagaasam mboolem li nga xam ne moom la amoon ci kër gi. nangu nañu caabi ji delloo ko boroom kër gi moom nag li ñu ko sant mooy mu génn dëkk bi ginnaaw bi ñu ko yóbbee commissariat ñu enregistré ko ba noppi